ci la nga xam ne moom nga def si te it di la sargal ci suñu biir la nga xam ne moom lañ bugg a def mooy dekkali cosaan ngir ne yàgg na fi sax na fi mu am loo xam ne mën na doon ne dañ ko bugg a suxi ñun nag dañ ko bugg a suxaat waaw jëmbat ko bi nga xam ne dina meñña doom doomi cofeel ngir ne xaajoo gi li ko indi mooy ñàkk a xamante kon loolu waral ñu oote bés bi te la nga xam ne moom lañ xam na la ñu ko jël sàmm ko niñ ko war a sàmmee ndax jàmm law ci suñu diggante alhamdulillahi waxdahu wa salaamaani ala man la nabiya ba'dahu maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent yàlla Muhammad mi nga xam ne yonent ab jàmm la jàmm la indi jàmm doon doxal masta tëb songu waxtu xeexee dañ koo songu muy aar boppam kooku mooy suñu yàlla wàcce ci moom na ko ñii nga xam ne ay christian lañ duñ jullit yàlla terewu leen ngeen jëflanteeg ñoom jëflante bu baax maandu ci ñoom def lu baax jëm ci ñoom ay yoo xam ne laa yanhaakumullahu an alladina lam yuqaatilukum fi diin walam yuxrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin hmm. yàlla mu ne terewut jullit ñi ñu jëflanteeg seen mbokk yi nga xam ne nekkuñ ci lislaam te xeexuñoo ñoom ñu jëflanteeg ñoom jëflante bu baax. Mm-hmm. mu ne nañ maandu jëm ci ñoom. te nañ rafetal jëm ci ñoom laay jooju rek doy na. pour ñu ànd ak ñoom waxtaan pour waxuma mu dellu si waaye mu sax. Mm-hmm. ndax jaamu mu ngi fi woon ba pare. Mm-hmm. ndax bu jaamu amutoon kon duñ mën a toog nii te di wax nii. ñun ak ñoom jaamu jooju nag moom lañ bëgg nit ñi xam ne. dara mënu ko fi jële ndax yàlla bu ko xasee ba saxal ci alquran yonent bi saxal ko leneen mënu ko dàq te bëggante daf fi amoon yàlla moo wax ci alquran ba tey ne wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qaalu inna nasara mu ne danga fekk ñi nga xam ne ñu wax ne ay christian lañ ñoo gën a jege jullit ñi ñoo leen gën a bëgg loolu nag comme am na ba pare kon jàmm am na kon li des rek mooy ñu waxtaan nit ñi xamul xam. Mm-hmm. waaw ñi xamoon itam gën a jàpp lañu xam. waaw mm-hmm. ah, maa ngi gërëm ñëpp maa ngi nuyu ñëpp yàlla eggale ñu ci bis bi ak jàmm. Mm-hmm. Sénégal ñu ngi leen di oo ñu oo waa Gambie benn réew la ndax li nga wax li boole ñaari réew yi boolewut benn ñaari réew ci àddina bi. kon nag lépp luñ nekk rek dañ ko war a bokk. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. kon mbokk jotaay baa ngi noonu. on the 11th May la 2019 Pencami Hall Paradise Suite. le 11 mai 2019 premier week-end ci ramadan bi fii la première édition bi di imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé mu ngi noonu borom jotay bi Reverend Fada Anthony Gabissi mu ngi nii borom jotay bi jullit ñi amuñ ngant chrétien amuñ ngant bés bu musta xew la njëkkee nen ko nak ci ñaari njiti rew yi président Macky Sall président Adama Baro, bind neen lettre bind ambassade yi ak bépp compagnie bu fi nekk. wasalaamaaleykum wa rahmatullah.